waaw jigéen li ñu mën a wax ci moom dafa bay euh, ndax jigéen dafa yaatu euh, jigéen mooy lépp jigéen mooy àdduna euh, sans jigéen góor du mën a dem fenn donc li ñu fi teewloo mooy di leen sargal di leen delloo njukkal ndax ñoom ñoo ñu jur ñoo ñu nàmpal ñoo ñu ëmb juróom-ñeenti weer mu metti lool du ñu nelaw du ñu noppalu bala ngay xam macha allah valeur jigéen. nga am soxna ba mu toll ci ay diggante ci ngay xam di jigéen di daj li sa yaay daan daj ci yow euh, du ñu nelaw yow moment bi ngay nelaw ñoom ñu ngi ñoom du ñu nelaw ñu ngi wàccu ñu ngi ñu ngi miir ñu ngi jugo ko daanu euh, kon nag buñ leen sargalee rek dafa doon lu ñu war waaw ndax jigéen moom daal dafa doy waar buñ koy bu ñuy wax ci ñoom sax suñu yaram day daw kon ñu leen mën a gën a mën a suturaale euh, ñu leen gën a mën a joxe cër jox leen seen wàccuwaay luñ ci mën rek ak quoi qu'il soit ak jigéen lu mu mënti def ak lu mu mën a doon bêtise bu mu mën a def erreur bu mu mën a def rek soo xamee ni sa yaay jigéen la rek duñ ko suturaal rawatina jamono ji euh, nga xamante ni macha allah euh, technologie bi dafa mel noo xamante nii doy na waar euh, nit ki nag bu xelam gàttee yow mi nga xamante ni yow yaa yaa ko couvrir wala yaa koy gis. yow yaa jéem a yaatal sa xel yow comme xelam dafa gàtt nga sànq ko sutura ndax te du la wàññi dara aussi àdduna dafa gàtt dund bi gaaw na gaaw boo xamante ni dara dara dara xaju fi man damay am doom keneen ak keneen day am doom euh, mun nga am doom bu góor ka mun nga am doom bu jigéen euh, di sa faj que à chaque fois rek del sàng jigéen sutura ndax di nga fi jóge ëllëg bàyyi fi say say say say doom kon nag euh, képp koo xamante ni mun nga gën jox jigéen gëddam respecté ko xam seen valeur mën leen dimbali nga def ko wa illaa nga bàyyi leen ci seen jàmm. jigéenu Sénégal njaay waaw leen jigéen suñu xol yi yéen ci nekk waaw góor di taxaw te jiyee nañ fa waat naa ni daal waaw ngeen jigéen waaw. góor gu fi sonn ba yegg këram as sa soxna moo lay teeru bis la laaj la papa ndax sonn oh, oh, sonn oh. su ko defee nga daal di kontaan xool ko bég daal di reetaan soo xefee nga daldi di jaaxaan yéen ñaar ngeen am di reetaan luñ leen joxul dañ ko amul luñ leen waxul dañ ko xamul jaral ngeen ñu lu ëpp loolu billaay walaay suñu yaay ngeen ndaxte góor fu mu toog tey papa jigéen ma fa toog tey njukkal leen jot na tey ji jigéenu Sénégal njaay jigéenu Gambia mënoon naa leen sama xol bi na ci nekk jigéenu Mauritanie naw naa leen Ibou xam na li muy wax bàkk naa leen waaw